La responsabilité avec laquelle le mouvement sportif a abordé la question de la Covid-19. Avant de penser à la il faut magnifier la démarche du mouvement sportif sénégalais. Je rappelle que nous sommes à l'arène nationale. Les les promoteurs de lutte. Et c'est les premiers à avoir contribué pour accompagner l'État à faire face à cette Je rappelle que lors de la réunion au palais, le président Macky Sall avait pris les grandes mesures. Ce même jour, le mouvement sportif était au, ministère des Sports pour barrer la route à la pandémie parce que le maître mot c'était il n'est pas question que le sport soit le couloir de transmission de, cette, de ce virus. En tant que ministre des Sports, j'étais très honoré de voir des collaborateurs aussi responsables qui montre tout simplement à la face de ce monde que le monde sportif est incontournable dans le développement économique de nos pays. Nous sommes restés sept mois et aujourd'hui, on tous du bois. Au Sénégal, on a une tendance baissière. Et partout dans ce monde, nous continuerons en tout cas à vivre en présence de ce virus parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que cette pandémie va disparaître. Et le président Macky Sall avait dit en son temps dans l'un de ses discours à la nation qu'il faut apprendre à vivre en présence du virus. C'est tout à fait normal puisque quand on prenait la décision d'arrêter, c'était une consultation, une rencontre de prise de décision. Quand on envisage de reprendre, il ne faut pas être surpris. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'appeler les acteurs, les présidents de fédération et groupements sportifs, les partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, la presse sportive, tous les acteurs, pour que cette journée soit une journée de réflexion et de proposition. Et quand on aura fini, les grandes décisions seront prises, mais je peux vous assurer que nous allons vers la reprise des activités sportives, parce qu'en réalité, nous avons bon espoir le Sénégal qui est classé deuxième dans la prise en charge de cette question qui est extrêmement difficile, nous pouvons espérer qu'avec les gestes barrières, avec certaines mesures, nous devons pouvoir faire face et recommencer nos activités, mais tout en respectant les gestes barrières. Ce n'est pas une question de remplir l'arène nationale, ce n'est pas une question de remplir un stade, mais c'est une question de reprise des activités sportives parce que nous abordons les compétitions internationales. Et dans le discours du comité olympique, dans le discours que j'ai donné tout à l'heure, nous avons fait allusion aux compétitions internationales et nous sommes sûrs que ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse. Ça va être en tout cas une chose nouvelle. Et il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Et je fais confiance à nos amis présidents et responsables du mouvement sportif. D'excellentes propositions seront mises en tout cas sur la table et nous aurons de fortes conclusions et d'ici la fin de la journée, nous pourrons revenir sur ces conclusions. On a une tendance financière, certes, mais aujourd'hui, deux, c'est le choix. Quelles sont les mesures d'accompagnement pour la réouverture des salles euh, du sport général Ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, c'est l'ouverture et la reprise des compétitions. Mais ce qui est constant, c'est euh, le respect strict des gestes barrières. Il faut mettre des masques, il faut la distanciation physique, il faut le lavage des mains systématique. Il faut faire de sorte qu'il n'y ait pas de mobilisation inintelligente, comme on peut le dire. On ne peut pas venir mettre 14 000 personnes ici au niveau de l'arène nationale. Mais je pense que si on respecte la distance, si on met le masque, si on fait les tests avant les compétitions, c'est des mesures, parce que le Sénégal n'est pas n'est pas, n'est pas à part. Le Sénégal est dans le dispositif mondial. Il y a des compétitions qui se passent ailleurs. Nous devons nous donner les moyens de faire la même chose et de faire plus pour protéger nos acteurs. Mais le a vu que si on les rencontres, ce sera à huis clos comme dans les championnats Mais vous voulez que j'anticipe sur la réflexion et la proposition. Ça ne serait pas cohérent. Le reste sera fait par le groupe et ensemble avec les ministères sectoriels. qui sont dans l'organisation des compétitions sportives, nous prendrons les mesures qu'il faut et nous déclarerons ce qui a été conclu avec nos amis sportifs. waaw dañu sant bu baax balaa ñuy yegg ci reprendre sant bu baax mouvement sportive parce que tey dañu daje ak 59 fédération groupement sportif mooy ñi nga xamante ñoo yore tàggat yaram ci réew mi waaye tey daje bi balaa muy am dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy bi mbas mi amee sportif yi nga xamante ñoo waroon na ne am jaax jiixi jaaxa am taxawaay bu jaaxal sax autorités yi ne dañuy continuer activités yi dañu lànk ne duñu nangu corona gi jaar ci monde tàggat yaram pour tas ci réew mi loolu nag ku am fulla ku bëgg réewam moom mooy jël décision bu mel président yi loolu lañu def taxaw ne dañuy gunge état bi ci xeex bi dem ci sensibilisation bi ñu ci jógee dañu dem dajale seen i koppar dajale seen i gel neenaa naa ñu taxaw ci arène nationale bi samedi bi ñu arrêté compétition bi dimanche am na promoteur bu defoon xaalisam pour tëgg mais fàtte nañ sax koppar yi ñu ci def ngir réew mi ba ca suba sa ñu andi ay gel indi ay koppar pour participer ko jox ko état pour ñu xeex mbas mi loolu képp ku jiite tàggat yaram jiite njaboot ñu taxawee noonu bégte rek nga mën a parce que c'est de la responsabilité la ca tegu mooy ñu gunge état bi ba tey juróom-ñaari weer kenn deful tàggat yaram ñu gis yàllaa ngi ñuy dimbale mbir mi mu ngi wàcc lañ ca xamuloon am na luñ ci xam léegi ñu ne war nañoo mën a xalaat teg ci taabal ji ñi nga xamante ne ñoom la concerné ay proposition pour ñu xam naka la ñuy def ba reprendre activité sportive parce que dëkk bu amuloo activité sportive wéetay day bari ñu dajale leen te jàpp nañ ne bu ñu xalaatee ba ngoon dinañ ñu tegal loo xamante ne bu ñu ko defee ànd ceeg ministère de la santé ànd ceeg ministère de l' intérieur dana baax pour que ñu mën a commencé waat ay compétition li nga xamante ne kenn mënu ko toxal mooy takk masque soriato raxasu mooy li ñuy wax geste barrière loolu kenn mënu ko toxal mais naka la ñuy def nag ba commencé waat yemul ci loolu rek ay disposition la yoo xam ne war nañ ko jël te du ministère des sports rek a ko war a jël moo tax tey ñu dajale leen te ñu am nañ ci ñoom kóolute mouvement sportif comité olympique waxtaan yu bëri seq nañ ko ak suñuy naataangoo ci àdduna bi xam nañ ni muy doxe feneen waaye Sénégal dafa am spécificité mooy na muy doxee dinañu ko doxal waaye ñun sax dinañ ci yokk toujours toujours Sénégal pour que mu gën a am xorom gën a baax te gën a wóor parce que du ay caaxaan moo tax Sénégal ñu classé ko deuxième ci monde bi ci ni mu taxawee ci mbas bi kon war nañoo am yaakaar li am solo mooy boo nekkee ci mbir dooy nelaw ba mu bett la bañ yella ne la jógal da ngay defaru ba bu ñu la nee départal rek fekk yow say matuwaay ak li nga war a def xam nga ko ba xam ne boo déparé li nga retardé woon nga mën ko rattraper au fil du temps donc loolu moom moo nekkoon daje